kenn ku ne seer na woon. Dimanche. dimanche 19 mars 2023 ñu ngi fii ci arène nationale bésu kan la bésu Sidi Diakhaté kan la tuddee drapeau bi Cheikh Kanté ndeysaan fii di jaxata tëgg fi combat bu mag mi Tyson 2 bokk écrit Tay ak Caatu Yoff ndeysaan Caatu Yoff am na 14 victoire benn défaite kii am 14 victoire 3 défaite ndeysaan arbitre mi ngi waaj mi ngi waaj a soufflé diggante Caatu Yoff ak Tyson 2 ndam li la jëm wala Yoff ci kanam dina leer arbitre mi ngi wax ñoom wax la lu règlement bi nangu xamal ni quatre appuis jël la dóor su loos ku ko def ñu ubbil la porte bi porte baa ngi nii nga jaar nii dem ñibbi waaw waaw mu ngi laaj ay zizam ndax pare nañ laaj na ay zizam ndax pare nañ ah arbitre bi sifflé na grand combat bi dimanche 19 mars 2023 ñu ngi fii sa arène nationale bu si di jaxate diggante caat bu yoof ak Tyson 2 ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi caatu yoof ak Tyson 2 ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndam li Pikine la jëm wala yoof ci kanam dina leer ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Tyson 2 ak caatu yoof diggante Tyson 2 Caatu Yoff ñoom ñaar ñu ngi lewtoo arbitre bàyyi leen ñu bëre day sànn du combat bu ñuy sax saaxe day sànn léegi mu leer diggante Tyson 2 ak Caatu Yoff ndam li Pikine la jëm wala Yoff ci kanam dina leer ànd ak kan béy di la grand monteur képp kuy bëggee Sénégal rek di baa mu ngi lay bëggee Cheikh Sidi Matar yàlla na fi yàgg te wér maa ngi gërëm équipe bi yëpp ñoom Mangone ñoom Kande ñoom madame Badiane technicien yi fa nekk yëpp maa ngi leen di bëggee. ndeysaan ku leen fi teewaloon moom mooy Diba tey mi ngi fii si arène nationale diggante Tyson 2 ak Thiatou yof ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Thiatou Yoff Tyson 2 Tyson 2 moo ngemboo ngemb bu bleu bi Thiatou Yoff ngemboo ngemb bu weex bi jiital pied droit ki jiital pied gauche day que le maire gagne diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff Tyson 2 ni dama ciy kii Tyson 2 li muy def nii loolu la war a def dafa war a téye boppam tey amul lenn lu muy perte ci làmb ji daa maye sens dafa war a ñëw téye boppam ba caatu Yoff moom moo war a ñëw confirmer bu Thiatou Yoff juumee mu daan ko li muy def nii loolooy làmba mais caatu yoof tamit tey dafa war a confirmer quoi tax tey bés bi koy boole ci làmb ci ci moom moom la quoi tey. arbitre bi sifflé waat na diggante caatu yoof ak Tyson 2. ndeysaan diggante caatu yoof lépp diggante caatu yoof Tyson 2. ndeysaan caatu yoof ndox luy dem demul. diggante Caatu Yoff Tyson 2 ñoom ñaar ñu ngi lewtoo cër bi Tyson jox Caatu Yoff dafa jox cër Tyson 2 fi mu toll nii mais Tyson 2 fii rek la ko war a jàpp ndax Tyson 2 bu daanee Caatu Yoff du bett kenn ndax Tyson daan na ku nekk ci làmb waaw def na lu nekk ci làmb daan Caatu yoof tamit mën na ko gën a delloosi si ci làmb mais importance bi ci Caatu yoof la ëpp quoi moom bu daanee waaw bu daanee kenn mënatu koo bañ ci làmb ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Thiatou Yoff Tyson 2 ndam lu Pikine la jëm wala Yoff si kanam dina leer te léeg mu leer ndeysaan poulain Eumeu Sène la kee poulain Malick Niang la tey bii combat diggante Tyson 2 Thiatou Yoff diggante Tyson 2 caatu Yoff mais yow arbitre bi àtt na combat bi day sànn ah jox na Tyson 2 avertissement day san jox caatu yof avertissement arbitre bi sifflé waat na combat bi diggante caatu yof Tyson 2 day sànn day san mais est-ce que combat bi mën na jeexee ci 5 minutes wala 10 minutes. no ci Tyson 2 lay dépendre ci Tyson 2 lay dépendre pour combat bi jeexee ci 5 minutes wala 10 minutes. Tyson 2 moo mën a attaqué booy bi riposte mais booy fi mu toll nii benn initiative pour pour attaqué ndax cër bi dafa bëri quoi. xëy na nag bu ñu mitanwee dem ba ñëwaat mën naa am ko semi yi conseillé ko loo xam ne nii pour mu ñëw la mais caatu yof li muy bëree nii moom waru ko woon a bëree dafa waroon a ñëw. dafa waroon a ñëw parce que moom lañ may chance moo war a ñëw prouver mais Tyson 2 tamit li muy bëree nii loolu la war a bëree. parce que ci expérience la war gën a mën a daanee caatu yoof ndax caatu yoof mbir mu sotti la xeex ba bëri na bëre ba bëri na te néewul doole kon Tyson 2 moom mi ngi ci bitam mais Caatu Yoff moom moo defagul li mu war a def bu leen fàtte ni nag lamb la quoi waa lamb moom lu nekk mën naa am. mais Tyson 2 est-ce que waxuñu ko téyel sa bopp parce que boy bi moo soxla. waa man sànq ba may lool loolu laa wax ak loolu wax ak moom man moom bi ma koy conseillé sànq dama ne ko téyel sa bopp bu juumee nga daan ko parce que amoo dara loo prouvé tey ci lamb ji man loolu laa ko wax sànq. champion ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff Tyson 2 diggante Thiatou Yoff Tyson 2 ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi nee teg e jàppante nañ ñoom ñaar laa ilaaha illallaah e eh, Tyson 2 daan na ko Tyson 2 daan na Thiatou Yoff jël ba amul benn werante kat api bu nañ waa Tyson 2 daan na ko kon li nga waxoon dëgg la. loolu ko waxoon lii laa ko waxoon bi ma ñëwee ci cumi kaayam lii laa ko conseillé ne war naa ko teel sa bopp bu ñëwee après bu xeexee nga kii ko mais làmb la ñu ñu félicité quoi waaw. waaw kon Tyson 2 daan na caatu yow jël li ba amul benn werante ndeysaan ku leen fi teew leen mooy Diba bu Sénégal c'est le maire c'est le daan na ko jël li ba amul benn werante am na ko jël ba amul benn werante. damaa ñëw ci Mécaye Tyson 2 ni ko téel sa bopp. Ah. ni ko téel sa bopp juumee nga ko. mbay mbay loolu laa ko waxoon lii mooy làmb. nee na lii moom mooy làmb Tyson 2 daan na caatu yof jël ba amul benn werante. muy drapeau ministre d'État docteur Cheikh Kanté mu delloo ko njukkal président Macky Sall nga gaye ko. Cheikh Kanté mbër mu mësee gagné drapeau am doon ko roi des arènes yàlla na nga doon roi des arènes ñu ngi la koy jox ci kanam le président nu Mbengue ci kanam ajartu Awa Jimbi chef de cabinet euh, président conseil départemental ak kalifa ñoom ak délégation bi ajartu Fat Faye présidente femme mareyeur ak Kéba Cheikh danañ la jox drapeau bi bu yàlla dogalee nga toog ba noppalu nga jël drapeau bi nag gémboo fanweeri seet du seet si ko. jërëjëf. Uh-huh. am naa kontaan bu baax nag. jërëjëf drapeau bi dama am fierté pour pour jël ko. jërëjëf parce que Kéba sama xarit la. indi la andi naa ko yóbbu naa ko fu uh, mais damay kontaan nag pour jëlaat drapeau bi. jërëjëf waaw kontaan naa bu baax. ok joxal tuuti rek. non ah. tuuti non waxoon naa la ko. waaw waaw nga ma waxoon naa la ko damay tey bi rek moom. incha allah loolu la rek. yàlla may na woon ndam yàlla na ma jig nag bu baax a baax. dama gis combat bi nga téye sa bopp. non gars yi ñoo ne ma téye sa bopp boo téye sa bopp kenn nu la man yi ma daanu yëpp damay jëli ñu daan ma. kon tey loolu indi. loolu laa indi. mooy naa maa ngi lay nuyu <laughs> maa ngi tudd Ndeye Awa Jimbi Diouf nekk chef de cabinet ministre d'État Cheikh Kanté ministre du plan Sénégal émergent président du conseil départemental de Fatick di ko nuyu di ko sant di ko gërëm parce que ministre d'État Cheikh Kanté Fatick yëpp dañ ko yoreel ngërëm parce que dañ ko fal ak taux boo xam ne mosul am ci àdduna fal ko mu am plus de 70 pour cent donc mu ñëw dem ci conseil départemental bi jël ay millions wam def un diagnostic territorial bi mu defee diagnostic territorial donc gis ne Fatick dafa war a am plus de trois 300 lits mu wax président de la république dama bëgg nga may ñu hôpitalu trois euh, de de de troisième niveau donc président may ko ko ba mu am am tey loolu am tey Fatick yëpp di bool di ko ko sant di ko ko gërëm donc di ko sant daal sant bu amul àpp di nuyu nag sama yaay Aïda Diop Gambi moom mi nga xam ne moo bëgg docteur Cheikh Kanté mais nag olof Ndiaye da bëgg buur buur bëgg laa ko gën. ministre d'État Cheikh Kanté madame Kanté Ami Diawara moo ko jël bëggal ko boppam. may jël di nuyul toute la délégation di leen remercier donc nag suñ nee lëg bu lekkee alom na ko na ko gërëmee coy damay gërëm kan soxnaay euh, euh, docteur Cheikh Kanté le ministre d'État